دينه فمن طالما يمنيه ببهر لإخوته السنة لناجينا أبي الفضل لمن يهوي إليك عراه يدعو سواك وتم من يعانينا قل المعاول الشهب شيك تطلب من الأرض ثرايا فذاكم منتفحين شخص جاب وتضرب بيعاتي ودون القرض قائدا به ومن المحمود شيعته لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عاملته وجدته منيا وإذا عاهدته وجدته وفيا خضرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا ودخل الجنة لمن أطاعه ولو عبدا عبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا قال الله في كتابه الكريم قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أحمده سبحانه وتعالى حمدا زكيا وأشهد أن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا في الجنان قصرا عليا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي لو رأيته لرأيته وجعا قمريا وجبينا أزهريا اللهم صل عليه وسلم وارضى واكرم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وعشية وسلم تسليما كثيرا ورضي الله تعالى عن ممد كل أولياء الرحمن منبع العرفان شيخ المشارق قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين شيخ التجار الذي شاعت طريقته بين البرية برهان dañ doon jël jël andulum jox ko nit jël jox ko kenn jël jox ko kenn jël jox ko kenn la ñu toppee woon jikko yi jikko bu jot ñu jël benn jikko jox ko fi sang borom xam-xam mu waxtaan ma ñëpp kontaan te lii nag ñu ni nañu ramassé yëpp bu ñu waxtaanee makaarimul axlaaq lan mooy jikko ju rafet makaarimul axlaaq borom xam-xam yi dafa am ñenn ñu nekk ak ñu gis lan mooy makaarimul axlaaq da ko ne makaarimul axlaaq mooy la maam Sidi Adio Maalik waxoon rek jaw ko may min kulli wasfin xamiidin xaala afara tafdilin min rajaabul baraaya yowma mustahabi makaarimul axlaaq borom xam-xam yi maam seen balaban la mu ne bu ngeen bëggee xam nag alamul axlaax nee na ba ca jëkk mooy bas pour wàcc mooy tàllal sa kanam pour nit ñi ñu nag sinon cheikh yenn saa yi mu am nga ni kii sa soxla si man na ci dara mais ñeme woo ko wax parce que dañu benn gàtt fu muy def sa ak ba boo amee soxla ñemewuloo ñëw wax ko sa soxla kon abbas ko wàcc tàllal sa kanam bu jullit yi ñeme la si na Muhammad nee na bokk na ci yi mayaay may tuyaaba ab jullit boo xëyee nga sàkk tuyaaba yu rëy da muy benn nee na wala boo ngay ci mbedd mi gis luy gaan nit nga yëngati ko sànni ko si naaw Muhammad nee na tuyaaba ju rëy la nee na yooyu yëpp boo ko amul nag nga tàllal sa kanam gisu mbokku jullit nee na muñ rek muñ dañu nekk ab jullit muñ ko Seydina Muhammad nee na ay bu ngeen xamoon li ci nekk ci tuyaaba dañu nekk sa mbokku jullit rek muñ muñ muñ xool ko rek moom muñ mu muñ nee na li ci nekk ci tuyaaba mu ko moo tax asan ni bokk na ci jikko yi rafet kon bastul wacc sa kanam ba nit ñi ñu ñu ni ko ak lan mu ni bés bu naraa génne ci sa wërsëg bi joxe te yàlla ko xam nga na ci juróom-ñaar yi nga xamante ni bu ëllëgee yow ma laa zilla ilaa zilluhu ker du am alaaji amul lu dul keru yàlla muy aras juróom-ñaar bu ma ci dugg kenn ki rek moo ma yitteel incha allah. wàccee jant i ba nit ñi di lax mu am juróom-ñaar yoo xam ni dañ leen di woo ni leen kaay leen ñoom ñu ñëw ñu teg leen suufu aras fa ñu toog dañ koy climatisé ñu jël ay mbaxana yu or teg ci seen bopp yi ñoom ñii xaar pour yàlla rek la jaam yi ñu traversé dugg biir àddina juróom-ñaar yooyu def ci bopp kan rajulun tasaddaqa bi saddaqatin fa axfaaha hatta la ta'lama shimaaluhu ma tunfiqu bi yaminihi na bi ne juróom-ñaar yi daf ci bopp waa joo xam ni da ngaa yëg ni kii borom soxla la nga lamb ci sa poche di ko nëbb li koy jox nga koy nëbb nit ñi ba nëbb ko sa loxo càmmoñ càmmoñ bi yëgul ni day jox bi joxe na da jafe da jafe am na nit ñoo xamante ni pour ñu dimbali nit publiquement rek aayul ah, nag ndax yàlla nee na bu leen nee may ngeen joxe ci njéeméer waaye nee na bi daal nee na joxe bi ëpp njariñ jëgëpp solo mooy joxe bi nga xamante ne da koy jël nëbb ko ba kenn du ko gis nga soo ko joxe rawatina nag sa càmmooñ sa dayoo bu mu ko gis kon muy bés bu na daal. asan nee na ñetteel ba makaarimul axlaaq yi nee na mooy kaful adaa nee na nga bañ a fexe ba sa loxo bii bu ci lor kenn ñu ne ko foo ko teg mu ni man salima al min lisaanihi wa yadihi ab jullit mooy nga xamante ni fexe nag ba jullit bàyyi koon rey bi ci réew mi nag pourtant ñu koy def ñëpp bi leen seen i parents di tudd ay jullit lañ leen tuddee woon Sénégal léegi ñaari fan yoo yeewu dégg ñu ne leen dinañu nit boo tax gis nga réew bi ku ne balaa newu fi yow yaa xamul luy balaa réew moo xamante ni da ngay xëy dégg ñu ne ab oto jaar na fii daje na ñaata nit ñu ni onze morts ñaata nit ñu ni quatorze morts ñaata nit ñu ni fukki fukki nit dee na ñaata yoon ñaata yoon ñaata yoon ci ñetti weer yi passé moo fi am ay accident yoo xamante ni yii fukki nit yii juróom-ñeenti nit bërki ne boo jaay ab bis moo tàkk ci ale nit ba nit ñépp lakk ko xam bërki ne boo jaay anam buur ñaari gaal gaal bu nekk def téeméeri xar muy deux cent jeunes yoo xamante ne réew mi soxla ñu leen te nga xam ne yàq bu tudd wóor ko ne gaal gi mënta yegg fii ak fii mu diw daa am nattu parce que yenn saa yi nit ki a defee nii nag neexul ba neexul ne àndul ak sa bopp man tey dama naan maa ngi ci yëg ci gaal gi ma ko dee waaye gaal boo xamante ni yow ndaw nga bi nga ciy yëg am na téeméer yu neex nga ne fii ci paal yor sa sareet di transport yor ci dara mam ci yor sa baay nga xëy jaay fas sa baay yëngu la nga jaay sareet ba sa baay yëngu nga dugg ci gaal neexul ba neexul mais ñàkk kilifa la ndax na ci ndaw ñi billaahi jar na yàqam ci Seydina Muhammad ne seen wërsëg yi bu fekkoon man ci bañu gay la gay la nga màtt ko di ngeen ko ko fekk nañu tey rek Seydina Asan ci benn boutique yor mbaamam jàmm muy jënd bi mu jëndee ba pare moom Seydina Aliyun laa bëgg wax mu jënd ba pare moom Aliyun jënd bi avant muy dugg mu fekk benn booy ci bunt bi mu jël laabu mbaam di téye ko ni ko booy téyel ma sama mbaam bi ma ñëw ci misaal pour ngeen doon ma comprendre daal di dugg ci biir boutique bi jënd li muy jënd ñu wecc ko ñaari dërëm Aliyun téye ñaari dërëm ñu ne ah xale bu baax bii ma fekk muy doxi soxlaawam ma ne ko bu génnee ma jox ko ñaari dërëm ba ba ma ne ko téye ma sama mbaam bi mu téye ko ci ne bu ma demee dinaa ko neexal ñaari dërëm am yu ñëw génn gis mbaam bi taxaw gisul xale bi mu yeex ko seetlu nag ñëw baax si ne jàpp ci laab bi gisul laab bi am yu xool fu ne mu xool fa gisul xale bi gisul laab mbaam bi am yu ni wax man damay waaw ko daal di xaaral mu dugg ci biir boutique bii jëndaat fi làmp am ñu dem benn boutique ñaar ñetteelu boutique mu dugg ci biir boutique bi fekk fi laamu ndaamam mi ñu wéet am yéen ñu borom boutique bi fa jëlee làmp bi mu ne ko benn booy moom moo ko jaay mu ne ko ñaata la ko jaayee mu ne ko ñaar dërëm seetal li àll yu ni noonu lii moom foog ma wax ci wala na لكان رزقه يطلبنا لكنما خلق الانسان من عجيز cay suñu muñoon suñu wërsëg dinañu fekk fu ñu mën a nekk waaye nag gis ngeen ñaar dërëm la yéene woon pour may ko xale bi xale bi sàcc na laa bi àll yoon dugg na ci benn boutique jaay te àll yu nañu yor ñaari dërëm ko jox ko kooku bu xaaroon est-ce que doo am ñaar dërëm bopp yi ndaw ñi nañu delloo nga dañ ko gëm gëm gëm gëm mais léegi dañ dégg léegi dañu wut feer yoo xamante ne si yu silence yi mën nañoo dugg fii ci biir jumaa bi ku bëgg fi ab buntu te à part bi ñu yor def benn produit am na ñoo xamante ni jaral na leen ñu jaar ci ginnaaw buntu bu jàmbur bënn miir ba rek la fa nekk ñu xew ci réew mi loolu la bokk surtout ndaw xam ngeen nu ñuy def. dañu leen delluwaat def ni mag ñi defoon mooy ñàkk jariñ mooy góorgóorlu liggéey am lu lew bu dee téeméer la wallahi laasim moo gën a barkeel million bi nga xamante ne xam nga ko wute keneen bi ci des mooy jërëjëf nañ liggéey ci suñu njaboot muy lu ñuy tuddee one expert ndaw ñu xam nañ li may wax ah waa bi su fekk dañ ko moytu xale yi léegi mooy naaw naaw bi baaxul gars yi di daay yéen a gën a xam naaw am na fi ñoo xamante ni ñu ngi yor seen i cours di ñëw fii di di allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mais bu ñuy dugg ci naaw bi dañ ko tey parce que tubaab bee ko préparé da ngay dugg ci sa naa ko ci sàcc alal def ci borom léegi def ci téléphone bi di kàcc ñu naan la un point moo la dese nga jàpp loolu daw dem wutiwaat dugal ci ñun la génn wàllu point la dese nga dem dem si waat ñun la non non da ngaa yéex a dugal ñàkk nga retiré waat la cinq point nga delluwaat la cinq point te mu ñu waat affaire bi ñu ne la nii loolu dama koo xam waaye kàcc ma na gën a teel gëm rasulillahi kon xadijatu wa aliyu ci jeune yi waaw xadija doo jëkk gëm ci jigéen ñi jeune yi aliyu bi muy gëm rasulillahi dix ans la am fukki at ak ñen koy dégg yëpp coow li muy bari bari bari bari bari bari ci aliyu aliyu bi muy gëm rasulillahi booba rasulillahi maanaam booba aliyu dix ans la am te kon booba xale la ak kan wabnu ali sadin zeyd ibnu alisa kooku yi c'est normal xam ngeen di zeyd dañoo wax moo ko may rasulilaay ñu ni déedéet rasulilaay moo ko jëndal boppam mais li gën a siiw mooy maanaam moom zeyd ci boppam Xadija moo ko may rasulilaay kon ab jaamam la moom doon jaam Masamba wax déedéet dafa ànd ak ay frère ñu dem di dugg dugg ci benn marché marché Ocass bii mu dugg ca biir marché ba tas mbooloo ma jaxasoo mu réeral ay mbokk te boobu bu réeree ñu jàpp la ñu jàpp ko jaay ay frère gisuñu ko ci la Maalik bindoon xasiidam bu siiw boobu ba baytu ala zaydin walam adri ما فعل أحي فيرتجى أو فيرجى أم هذا هو الأدب sama frère bi xaw ma dafa dee xaw ma lan la kon moom c'est normal mu teel a gëm rasulillah boo fekk su mag mu am Abdourahmane ibn Awf kon xadijatun wa aliyun wa ibnu harisatun wa kay wa man bi daawatihi Usmaan zu salami moo tax man Seydi Aji Malick Si xilaasam bi garaw tudd ko Usmaan dañ rek moom ñu daaw ñu Ousmane ak Ousmane léegi nag yow boo xamul ku indi Ousmane ci biir l'islam nan ngay xam ne jëmm ji muy wax <laughs> dégg nga rek xam ne doon wax na yoon wax na am sëddeen waman bi daawati ya Ousmane ak Ousmane kan la Aboubacar moo dem campagne Ousmane juróom yi ñu bëgg ñëw Aboubacar leen woo Abdourahmane ibn Awf commerçant la woon Sadio xam ngeen Aboubacar lu mu doon def commerçant la woon ñoom day daan duggalante te génnalante moom ibnu Awf mu am dugg gi ci Aboubacar moo tax ba Aboubacar ñëwee ni ko sama xarit boobu ñuy wax Mouhamad mu ne ko ah Mouhamad ibnu Abdallah mu ne ko waaw mu ne ko moom yàllaa ko yónni mu ne ko ah nan la ko yàlla yónnee mu ne ko non yàllaa ko yónni c'est-à-dire daal koy wax convaincre ko mu ne ko nañ dem ci Rasulullah ma jébbalu ndax yow doo doo dugg ci ay jaaxal. daa am seeg ni rasulullahi ashadu an la ilaha illa wa ashadu anna muhammadan rasulullah abdourahman ibnu awf waa ñu jàmbaar ñu mën a liggéey ñooñu li ma leen doon wax léegi turam sax ma jëlee leen ko commerçant bu xëy ci sa boutique tijj am naa ay alxuraan boo xam ne boo ko ci jàngee tudd ju turam tëf li ko dëkk koo sant li nga jaay wax léegi ci yàkkam jàngoo Ablaye rasulillah yi di ko yàlla yónni bokk na ñetti si warul yàllaa ko yónni ci kaw di xaar rek leen daa lay ku mu yaakaar ni war nga koo mën a gëm mu ñëw ba say nopp ni la gay yàllaa ko yónni ci lan nan la la yónnee mu explique boo dee gëm nga gëm mu dem ci keneen topp ci daarul arxam la ñuy daj ñetti at ñu di ko woo fanweeri nit ak juróom-ñeent la am moom rasulillah kon ana yaa tant fanweeri nit ak juróom-ñeent waaye ki nga xamante ni nag huwa bi nabi aslama alfaruqu summa bihi kenn kooku ne ko Omar sa ñax yu rëy na sa waafu bi rëy na bi foo jëm mu ne ko man nii fi ma jëm yomb na rasulillah laaj laaj laaj fan mooy daara bu ak am ji may dégg ma fekk leen foofu def leen li ma leen di def. sa waa kër tuub nañ di mu ni man Omar sama waa kër mu ni ko sa sœur Fatima dugg na ci lislaam ak jëkkëram mu ni loolu moom tamit. Omar nee na ma waaw ñoo am sama buntu kër ma dem ma déglu ma kën kën kën kën kenn ubbiwul Omar nee na ma ba ma bunt bi bunt bi daam waa ji doon jàngale sànni kayit bi ndaw dugg ci foofu laal jëkkëru Fatima jëkk de de sëru Omar bëgg génn Omar baare Fatima ñëw taxaw ne ko lan la mu ne ko demee munum munum yi may dégg suma biir kër gi moom laa bëgg ngeen wax ma lan Fatima ni ko du dara mu ne ko du Fatima ne ko du dara ñoom ñaar ñu xëccoo mais ñoo bokk garab ju tàng Omar arrière toj ko bes dara di ñaar dama kenn di sànni Fatima moom it dara ñu xattaab di yëngatu yaram bi tàng mu ne ko maa tey dugg naa ci lislaam maag sama jëkkër dugg naa ba mu neex ma Omar ko taxaw ñu wax kon abal leen ma këyit bi xanaa kon na nga commencé wàcc Faatu ne ko kenn doo ko abal innahu la kitaabun kariimun fi kitaabin maknuun laa yamassuhu illa mutahharuun kii téere bu sell la yow soo sangu set alxuraan nii kenn du la ko jox bu la duggee ba jox la ko duggal ci biir wala bi nga sangu jàpp ko jox la ko nga kenn du la ko seen diggante ba war a xam ne jaaxaan jeexul mu dugg ni ko ni ñuy sangoo set mu expliqué ko ni ñuy jàppee mu expliqué ko Omar sangu ñu jox ko téere ba fekk ci Taaha maa anzalna alayka alqur'ana li tasqa illa tazkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al arda wa samawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa lahu ma fi samawa وما تتسرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى affaire bi dugg Umar nag mu mel ni ku sibbiru mu ne ko waaw jàmbaar gi de mu ne Fatou doo ko sarax mbir yàlla borom ko xam na Muhammad mu ne ko laaj ko keneen man du ma la ko wax <laughs> da lay ko parce que ñoom ñaar ko lay baax Omar Gueye ni fan mooy fan la Mouhamad ne ñu ne ko fële mais jaas ji mu wékkoo woon mu ngi wékkoo jaas ji ba léegi moom Omar jullit yi boobu dafa daan am ñuy sentinelle da ngay sentinelle li muy jëriñ def taxaw ca kaw di yëngu ba na ku fi ñëw mu ñëw di Rasulillah yi ni ko ah sant bi tey mbir am na mu ko Omar ay nett Omar mais ne gàcceel bunt bi nee na loo bunte bunt bi rek dajeeg teg rasulillah mais nee bi ma poñee def aw Omar doole baykat mu ne ko yàlla ma yónni ñëw ko sax da ko expliqué ci loolu la yónni xale ji daa sukk ci kanamam rek ni ko ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah muy bind xadiija deuxième bakkan aliyu aliyu mooy bi ñëwee Madina Munawwara saxaaba yi séddale ko bu leen di jox la kii xaar tool jox kii kii làmb alal jox kii Abdurahmaan ibn Awf ki ko yeneen bi boolee loolu daf ni ko déedéet man bul ma sédd dara dama lay ñaan rek nga lebal ma téeméer dalawan ma fi ñuy jaayee ak di jënd mu dugg ci biir marché bi ñu lebal ko téeméer Abdurahmaan ibn Awf xam ngeen defu fa sax quatre ans ci loolu bi yéen bi leen tijjee jox na ko fukki junni te téeméer la démarré ko ak kan koo teg Zubayr Zubayr bu ko jur Awaam a ko jur Awaam bu ko jur Kuwayl bu ko jur Xadiijatu Awa Rasulullah bu ko jur Kuwayl moo ko jur Awaam ak Kuwayl ak Xadiijatu Kuwayl moo leen jur ñoom ñaar ñoo bokk baay kon war naa teel a gëm yemu ci mais goro Abubakar la Zubayr goro Abubakar la moo dencoon Asmaa bi doo Abubakar mi ñu tudde woon Zaat ni kaam fay nii moo jur Abdallah ibnu Zubayr mooy première bébé bi njëkk a juddu bi jullit yi gàddaayee dem Madinatul Munawwara Abdallah ibnu Zubayr moo njëkk a juddu avant ngay dugg ci biir Madinatul fa la juddu mu doon feeñ mu doon feeñ jullit yi mu doon feeñ yéefar yi dañ yëg ne jullit yi ña ngi gàddaay ñu def bétail d'opinion li gars wax wër jullit yi ni ah waaye bu ngeen def nañu suñuy xaroo foofa julit bu jigéen bu ñëw biir nit dafa mën a war du am doom liggéey julit yi war a pas pas jëm ni loolu du am la ñu commencé ne léegi léegi far avant nga dugg biir nag ñu mën a war abdoulaye ibnu soubay lu jut tuuram dina ñëw julit ko mu jëlaat mooy xajjaat ibnu yunus yusuf ca kaw kaaba dama ray ko ray bu ñaaw bi mu nga daal ci suuf soo ko wax moom abdoulaye ibnu soubay wa ak Osman. Côté Osman. te la ñu tàmbalee nag ñu ko nag wax yow lu mu doonoon dañ ko commencé nag di ko doon kon gaañ bunt bi foofu la ñuy teg suñu loxo mu jeex donte nee nañ ko moof ñaanu waay waay waay yàlla nañu yàlla may ñu fekk déwén bi boobu ñu fi ñëwaat dañ ñu tàmbali loolu bi ñu ko doon wax waa la ndax ay bokk ma ndax ci si moom ma ndax ñooy ne ñu mujjee seen yi kan ak kan ñoo gënoon métti ci lañ ñu ngi ñaan yàlla na yàlla may ñu incha allah deux mille vingt cinq yàlla bu ko kenn manqué kay manqué daal mooy jeune bi nga xamante ni daa bëggoon a tukki waaye nag daal na ci yoon wu am na ay kayitam dugg na ci am yooyu dem na ma ngay seetaan arrayxaan ma ngay seetaan rawxaan ya ma nga ca Espagne ma nga ci biir Europe ma nga ci biir États-Unis mais nag yoon wu légal la jaar kay absente daal yàlla doon jeune boobu yaa yàlla bu kenn tëdd yàlla bu kenn manqué mbokk yi maa ngi jox sama kilifa sama sëriñ sama mag incha allahu mu mottali guddi gi waa su ndaw waanaa alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu